أياس مني الله عند جولي هبلي زين ناديته بيا di leen sant di leen gërëm di leen yëgal nag ne yoon mu ngeen leen leen a fi man tey nag yóbbante wu ma damaa bëgg ngeen toog seere li nga xam ni ñu ma siqal war a wax ñoom maa ngi koy wax ak ñoom ngeen may ma rek dégloo ba li ma war a wax lépp ma wax li may jëkke moo di kilifa yi diine yi fi tase te ku ci nekk bàyyi ay yitte bàyyi ak njaboot bàyyi kër te dara yëkkatiwu leen lu may fasjudu lillahi wax doo rek di nga xam ne moom la ñu nekk fa ñu dëkk loola rek ca leen yëkkati indi fi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen xamal ni leen seenu pay de moom awu ko seenu cantik lott naa ci waaye nag yàlla moom am na lépp kon yàlla na leen fay yàlla na leen gërëm te dimbali mu nuyu sa sama bokki taalibe yi nga xam ne sunu yaakaari ëllëg yeesuwut Sëriñ Tuubaa sunu gannaaw bakkan amuñu lan lu ñuy daariloo man caa teg baaraam lu dul Sëriñ Tuubaa bala maa waxtaan ak yéen nag dafa am luy jëkk damaa bëgg nu bokk sant yàlla gërëm ko ngir yàlla kat dafa wax ne bu ngeen ma fàttalikoo ma fàttaliku leen ren nag wóor na leen ne yàlla fàttaliku nanu yàlla nag bu la fàttalikoo ba noppi la ngay fa la nga koy fàttalikoo moo di la mu santaane nga def ko yàlla dafa wax ne wa aatoo xaqahoo yow ma hisaadihi wala tusrifoo nawet moom xam ngeen ne kenn mënu koo may sa bopp ku ko am wóor na leen ne yàlla la ko may wóor na leen ne ren yàlla may nanu ko kon nag nan sàmmonteeg li yàlla santaane def ko góor góorgóorlu leen ci asaka yi def ko nam ko na ngeen ko war a defee na sell te li ci desi ngeen bañ koo yàq ndax yàq kat yàlla tere na ko waaye li ma koy tere tere da cee dolli ni buggul ku koy def loo xam ne yàlla da koo tere ba noppi bañ ku bañ ku koy def mu bañ la lool daal ku ne war na ko wattandiku wattandiku leenu yàq nawet bi mu ngeen ko jariñoo ci ni ko yàlla santaane génn ak yàlla li ci desi ngeen téye ko te bañ koo yàq dana barkeel ci seen loxo te amaana it yàlla bu dee tee def da leen di gën a dimbali loolu laa jëkk bëggoon a jëkk waxtaan ak yéen ginnaaw bu ma leen santee nag ci jóg ji ngeen jóg yéen ñëpp bàyyi seen yitte ñëw fii ngir bisub sëriñ Tuubaa bi kenn ku ci nekk la nga man nga def ko ci loolu mënuma lu may sant leen ci yéen ñëpp nag te nag dikk nag ci waxtaan léegi damaa bëgg mu wóor leen bu leen dégg mu ko alxuraan di wax ni wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani xawmihi ba tax ngeen defe ne ab yonent rek tax mu di ko wax ab yonent nabiyul mursal moo di ab te kooku rasulullah ci mujj waaye nag mursal moom du fi jóg seen saa ngir képp koo xam ne boo dee wax ñëpp ne tekk di la déglu mursal nga ci ña ngay waxal ñu yónni nga ci ña ngay waxal yàllante nag nga xam ko mbay wax loo xam ne njëriñal àllaaxira dina ci jóge njëriñal àddina di ci jóge ngir àddina ak àllaaxira dañu fee bokk ne lu ci ne am yàlla am lu ci yàlla santaane wabtaxi fii maa aataaka allahu daara laaxirata loolu suñu borom wax loo am sàkku ci sa kërug sa kërug àllaaxira wala tan sa nasiibaka mina dunya surtout ci àddina it bu ko fàtte kon nag koo wax ku ni war leen wax lu leen di jëriñ ci àllaaxira war leen a wax lu leen di jëriñ ci àddina kon nag ma leeral leen ni leen doomu aadama yi li ñuy bari bari yu jëkk yi ak yu mujj yi ak nun ñe ñeneen ñuy xale di ci ñëpp yowmal xiyaamati kenn ku ci ne da nga wéet ak yàlla ba mu defe defee ne yow dong la sàkk loolu yàllaa ko wax wa kulluhum wa aati yi yowmal xiyaamati fardan wax na it ginnaaw da ngeen di ku ne dana dikk fi moom nag ku ne nag la nga indi ale lam la ca war a defal ak lam la war a def wax na ko te def defal ak def dañoo niroo waaye bokkuñu innahu man yaati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wala yahya ku dem ci sa borom te yóbbaale fa ak tooñ jahannama rek la la yóbbu wa man yaatihi mu'minan qad amila saalihaati koo xam ne yóbbaale nga fa ak gëm yu jëf yiw fa in fa ulaa'ika lahum darajatun ulaa rek la di defal daraja yi gën a kawe kon nag nun murit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 kon nag diggante sëriñ Touba ak bi laa bëgg nu waxtaan ci diggam ak yonent bi defut loo xam ne da ko da ko gonte lu mu xëyee rek la ngir moom bi mu amee ab taw moom la ko tuddee muy Serigne Mamadou Moustapha bi ci keneen toppee yonent bi la ko tuddee muy Serigne Fallou bi ci keneen toppee yonent bi la ko tuddee muy Serigne Mouhamadou Lamine bi ci keneen toppee yonent bi la ko tuddee muy Serigne Mouhamadou Bassirou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 وصف بكون حامة عبد الله xaddima abdillahi ya ilahi yàlla seeral loo naa ne la bisum tey def naa sama jëmm ak sama tur muy jaamub yàlla donc boo xam ne bii nag day lëggeel jaamub yàlla bu mag bi jaamub yàlla bu mag bi tax nga wax fa awha ila abdihi ma awha tax nga naa subhaanallah asra bi abdihi lay muy rasulullah loolu rasulullah di koo xam ne ku ñëpp di lëggeel la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 daa ni ilaa mati nabi hubbu saati liggéeyal gi mu koy liggéeyal ak tagg loolu it wéral na ko ndax bind na ne mahat mahabbati yal muxtaaru sayiduna hubbil maxaani wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fida u lawo xarban xadiman lawo muskaani li sanada loolu ko ko bind deseeloo kooka lan kon seene ci yonent bi kon di gëm a yonent bi natteeb li wunu ne ko ko jàpp rasulullahi nga jàpp ku jàpp rasulullahi yàlla nga jàpp ma xamal leen nag ne leen murit ci boppam nag moom moo amut aw tur rekk la loolu na leen leer murit aw tur la sëñ Tuubaa mooy jëmm ji tur wu ne jëmm lay wut lay woo koo xam ne bi nga ko jàppagul doo tudd murit boo ko bàyyee doo tudd murit bu ñu la dee wax murit moo tax loolu benn nattabiliwu ko kon nag mu leer leen ni leen li mu jëflanteeg taalib yi lu lu leen war a leer la lu ngeen war a xam la dafa wax ne moom de fam mbooloo tofal ko nit li muy def ci nit mbooloo topp ko bu ko defoon ci garab nit ñi dëkk wër ko te duñ fa jóg li muy def ci nit def ko julli ñaari raka moo ko ko gën a jafe kooku kon mel na ne kam doon liggéeyal dëpp na dëpp na ko kàttan te loolu lu ci firnde moo di dëkk murid boo gis ci àddina moo ko sanc ndax moo joxee tur moo jox kooku suuf ne ko foo bëgg mu yàgg fa yàggale ko fa ñii dañoo far yi fas takk ko yónnee xeb la gu nañu yóbbu ca suuf ñi nga xam ne ñi seen xalaat yëggul foofa ñu far ko suuf ci seen dëj am na ñoo xam ne suuf sam leen jox dañ ko denc ne dañ bu jëlee yóbbaale ko waaye benn murid bu dëkk fenn bu ko ndigalam dëlul foofa amul kenn ko topp kenn nit koo xam ne du sëñ Tuubaa tax mu topp ko fa amul loolu na leen wër yàlla def nag bi loolu amee kon nanu waxtaan ci diggante mag àddina àddina yett rekk lan ci gisan mujjite woo ko amatu yenteel taalibi yi ko topp te yaakaar ko te muy dëgg ci ñoom ku mu ci ma sa toogal won na la ci boppam wan la ci sa digg ak yàlla wan la ci sa bopp lu tax bëggatoo di kenn benn taalibe bu bëgg di moroom ma amut ngir la mu la mu xam ci sëñ Tuubaa mu xamal ko ko ak la mu ko won ak la mu ko dal bëggul ci moroomam loolu wóor na ñëpp kon nag boo xamante ne benn taalibe bëggatul di sa morom te la mu la won moom nga gis ba tax na bëggatoo ci kenn kooku kon won wane na ne liggéey ci taalibe yi moo doon wàllam ci àddina li mooy alxuraan alxuraan moom dafa wax ne yowmal xiyaama ci ku ne sa pàgg fiifu àddina dañu koy indi jóor ko nit ak jinne ak malaayka ñëpp gis ko ba ma xamee loola laa def alxuraan muy sama pàggu téef moom mi jóge ci yàlla jëm ci yonent bi ci jëlu sat loolu moo waral mu daa ko bindu di ko jàngul dëkk bu mu masa nekk ci àddina kaamil bi bu ñu xëyee jàng ko yaari yoon bu bëccëgee ñu jàng ko yaari yoon fu mu masa sañ ci loola lañ fay def banjaare bi ngeen loola du fa jóg tey jii Tuubaa ji juróom-ñaari jàkkaa ngi fi yoo xam ne jàkkaa ju ne bés bu ñu ne daañu fi jàng ñaari kaamil lu suba ak benn bu tisbaar ak benn bu takkusaan jën gu te dëkk bi lee mu am téeméer rek waaye loolu jënd gu loolu kon won na leen ne moo seddoo alxuraan mel na it nag ne <coughs> séddoo jum séddoo alxuraan am na lu ko ci yàlla jox loo xam ne yaakaaruma ne jox na ko ñëpp ngir toog ne fii ni benn taalib bi ci taalib yi xam na turam xamul santam xam dëkk ba mu bind ab kaamil wutal ko jëfee am ko ci malaadum seet jox ko kenn ma sa gis nag mën na ko mën na ko ci loxoom lenn lu lu kaamil lu ko nit ma sa jox tegal foofu la lay wax nit sax mas naa ñëw jënd pañe bu gura jox ko mu ne ko loo ci jublu mu ne ko dama di gën a bëgg nga guro mu ne ko yóbbul daal di wërlu kër gi ni fu fi guro nee nañ ko génne man di suma mandargal ci bëgg daral dul yàlla yonent borom kaamil boobee dafa dafa tàllal bi sëñ bi téye ko ñaari loxoom ni ko ah, yow de kaamil bi wow na lool fa farixan kasabtum bi ci suratul baqara rek nga fàttee sadda wallahi xasin bañ ko ubbee kon ngeen xam ni alxaraan la fi nekkoon ci àddina benn li ci des na muy tuubaa ji nag tuubaa moom juróom at la fi dëkk ñu jële ko fi dellu si at yi fi ba wuy waaye diir bi li muy nekk ci àll bi mu ngi naa rabbi stajib waltu ko mil maana waytu lada tuuba la si bi ka tuuna fii ka budyaana mi ngi wax yesir jox yi li tuuba wax mi di wax ni asawara waltu tibli sama iskaan ku mu juri fi la la dëkkuloo fi nga yaroo fi nga jànge fi la ñëppam dëkk waaye rek tubaranke gone day am na ci dëkk bi ndax man mi di atum kayit ga la fi ñëw ba léegi fekk naa fi ci sama bët bu nit dee jàpp ay ay ndongo di ko taatan di ko naan ngir ngir ñàkk ndox fekk naa fi bu jigéen dee sebati ay ndongo di koy wër di ko ñaan sebat na ngir bëgg koo naan mun naa leen du ma leen mën a jox lépp ngir dama ci wëgg sama xar loolu fekk naa ko ci Tuuba toog naa ci Tuuba ji itam bu bu luy xuy guddi du ko sàkk lenn lu may wax day daw yooxu ne daa jom lenn luy leer day loolu loolu fekk na ci Tuuba ji ab sanc nag bala ka juddoo ci sanc ba mënut xam na neexitu sanc ba mel waaye ka bàyyi ko woon ci gent ba ñëw ci sanc ba di lu yokk ci sanc xam na ko léegi nag Tuubaa li ko sëñ Tuubaa doon fonk fonk li ci njabootam gi doon dëkk dëkk li mu fi ñibbi si ñibbi ñëpp ne fi gisuma gisuma ci dolliku ci biiru moom ak suñu bopp lenn ndax gis naa rek weesu wutan di village ci biiru kàndom jaraaf yi fi dëkk xam naa fi jaraaf yi ñoo xam am koo tar mbët sow ca mbët sow moom ci lu laa ko fi tegoon xam naa fi jaar yaa fi ju ñu wax mbaar xam naa fi jaar yaa fi ju ñu mbaar boobu ma xamu dëkk wiisul foofu waaye loolu lépp tëriwul nag mooy wax ne kataballahu tabaraka wa taala ana dawlata nasara in taqalal nu huna min aydihim ila aydi xëyihim nu di ko jàng di ko gis mu dul noo xam lu ñu fii moomeelu nasaraan yi dana doxoo fii ci seen loxo nekk yeneen i loxo xamul woon ñoom tey nag bi réew mi moomee boppam ñaari président fi amagul ci li ma gis bu jëkk bi li mu def ci dëkk bi gis naa ko ndax kàntongu kayel ak kàntongu laa ñooy dëkk bi département yu léegi am département lañu ko tuddee am na fi ñaar fukki at def na si ñaar ci forage kon mel na ne at mu ne forage la fi def ginnaaw boobu ci bàyyi ko ki ko fi wuutu juróomi yaari at la fi amagun dolli na ci fanweer ak benn ci lu ma wóor comme neex booy baw ñëli sama Touba jiitam man du ma wax lu ma leer lu ma leer rek ab forage la fi inauguré ko fi ak um marché léegi leneen lu fi ne ki ko fi def mu su fee taxaw léegi mm. inauguré dara kon nag buñ dee gor ñun ñi nga xam ne noonu la ñu ko defal noo ko war a wax tey jii lu mu ko tudd ci département bi juróom-ñeenti forage ngi ci biir dëkk yoo xam ne moo ko ci fi bàyyi ko bi mu fi bàyyi ko ci wàllu kër docteur infirmier d'état la fi bàyyi woon la jëkk loolu bu fi neen masa gaañu am rat la ñu dëbb rek tey ci loxoom infirmier moo fi mu jën moom la ñu wax ba mu ñëw fi jiirum ñaar fukki at kii def na fi ab hôpital kooku ñu faj ci tund wi yëpp loolu jëf a wax li ci dolli ku itam mu wàllu lamp yi wàllu lamp yi yegg na ci téeméer ak ñaar fukk ci ay kilomètres yoo xam ne ay buumi lamp la ci ci dëkk bi li dalee daru Manaan euh, ba ba Tuubaa bi loolu leer na man nañ kon nag jooju jëf ju set la te lu si jëf sëñ Tuubaa lañ ko jëfal loolu na leen wóor ndax département bi moom dëkk bu ci ne amori sa fa dem sëñ Tuubaa jox ko ndigal moo sañ ci fa nekk fa kon lu ñu def ci département bi sëñ Tuubaa lañ ko def kon nag ma di leen xamal ne su fekkoon te woon ne doomu aadama mooy fal buur di danaa leen wax leen nan ko fal te buñ ko folli waaye nag ginnaaw doomu aadama mu mënu ko yàllaa koy def yàlla moo ne allahuma maalikal mulki tuutil mulka man tasaaw wa tansihul mulka bi man tasaaw mooy buuru buur yi mooy jox buur ku ko neex moo koy jox moo ko génne ci ku ko neex ginnaaw loolu moom liggéeyu yàlla du liggéeyu doomu aadama waaye kon nag am na lu doomu aadama man carte yi nga xam ne war na koo soxla ci nun daal bu ko ci moyeele wenn rek fa yóbbar ko loolu na leen leer te ma di leen yëgal ni murid bi waaxu soli daal dam di dox rek ku ko neex di ku ko neex di sangam waaye murid bu ñu tëral ci ba ci man mi gën a bon neex may fi kilif bare murid dox waaye daal murid bu ñu tëral ci jàpp jëmee ko àllaaxira ku ko ne am nga sang bu dul sëñ Tuubaa waaw bu mënoon a jóg bu jógee mën a jógee bu jógee du fa bu yàq des dal ci sa kaw loolu kenn na sunu boroom nag moo wax ne alxaqu min rabbikum fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur kon bu fekkente ne neexa na leen gëm leen ku mu naqari weddin waaye yàlla day bi mu ko waxee ba àggal boo toppee fal yakfur jëlan ca teg yaakaar naa ne weddi du am solo boo ko toppee ba ci bii sa saabu wa sa at mur safaan da nga xam ne mutu ko fal yumin ji lam ca teg boo ko toppee ba ci ni ma sawaabu wa ahsunat mur safaan da nga xam ne gëm a gën loolu rek laa xam ci war lees ko wax yàlla yàllaay fal buur daal li mu li nga xam ne noonu moo ci sunu wàll daal nañ ko def bu ko bu ko kenn moo yàlla saw carte murid bu ko moo yàlla saw carte rek war nga sëñ Tuubaa loolu la kon nag lii laa la doon seereloo maa ngi lii laa ngeen seere ko lii rek laa war a wax yi ma waxal doon leen ko jot di ngeen xamal nag ñu leen indi a du la weesu loolu na leen wóor sëñ Tuubaa liggéey na ko jëkk tey loolu man mën naa koo xam am naa ci firnde yu ma leer yàlla na yàlla saxal ci jamono ci sutural ci musul nu ci dimbali nu ci barke lépp ginnaaw waxtaan am solo wi ak kilifa yi nga àllal yépp ñu di ay ministre ni yow ak ñi nga xam ne duñu ay ministre maa ngi leen di delloo nuyoo di leen sant di leen gërëm di gërëm lool président Abdou mi nga xam ne tànn na leen yebal si leen fi ci sunu xew-xew bi ci fekk ngeen di ay xarit ci kër gi ñu wóor ci nit bu xewlee nga tànn ay xaritam yebal ko ca won na won nga ko ne defoo naa la li ngay def ànd naa léegi nag gannaaw nuyoo bi dama leen di yóbbante yóbbante boo xam ne wax ju gàtt sax lay doon waaye ju wér ceng nag lay doon xamalal leen ma ko ne ko nun dey gërëm nañu ko ngërëm li itam jëfa ngir daf noo jàpp ba nu xam ne jàpp nañu mu jàppale nu ba nu xam ne jàppale nañu kon nag ko wóor ne jàpp nañu ko jàppale nañu ko te lii ma wax dara du ko dindi lenn rek ko mën dindi de te fooguma ko moo di jàpp gi mënu jàpp mu dellu ci gannaaw ba nu xam bu baax a baax ne jàppatuñu wa illaa jàppale gi mu dellu ci gannaaw ba mu wóor ñu cëng ne jàppaleetuñu te boobaa itam na ko fayab xuloo na ko fayee mer li yàlla santaane rek la ñuy def inna allaha la yuxayiru ma bi xawmin xataa yuxayyiru maa bi anfusihim yàlla du soppiku ci digganteem ak benn jaam ndara du jaam baa soppiku ci ñoom jàppante woon ak yàlla rek fii ma yegg ak yéen ci ay wax nag ñëw ngeen fi ba tàyyi te yëgguma ci waaye man dama dul wax lu newul fi man lu wax lu may jot lu wax lu ma defee jàppale gi daal wóor na ma jàpp gi it wóor na ma kon nag sunu jàpp na leen wóor sunu jàppale leen na leen wóor ñaan gi nga xam ne itam yaa ngi koy wax bëgg nu defal leen ko bu nu amoon benn ñaan gu nu ñaanal sunu bopp rek dal leen koy ñaanal fasaasa boole leen ci waaye na leen wóor ne nun amunu ak ñaan gu nu war a ñaan kenn rek a taxaw ñaan yàlla ba yàlla nangul ko nangul ga di lu tasaaroo ba daj ñëpp kon nag la ñaan googee noo ngi ñaan ngeen dugg ci biir ba li ngeen bëgg ngeen am ko léegi nag ma dellu kon waxtaan ak sama bokk ci taalibe yi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm bëgg nag nu waxtaan ci ay fànn ndax ci la sunu njariñ ne ji ci jëkk moo di kan yàlla yàlla dafa fab porteleem wannu kenn na tëb liwuti ni ni mu ni mu ni mu wone noona rek la mel alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi ardi ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala xamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min salika wala aksara illa huwa mahahum aynama kanu suma yunabbi'uhum bima amilu yawma alqiyamati inna allaha bi kulli shay'in alim yàlla dafa ne moom de xam na li ci biir asamaan xam li ci biir suuf nanu wóor ne fu ñett ne moo leen ñeenteel fu ñeent ne moo leen juróomeel fu juróom ne moo leen juróom benneel fu mbooloo ne mu nga ci seen biir te lépp lu ñu jëf mi ngi koy téye te dana leen ko jottilaat bu bis penc ba ndax dara ump ko kon kooku melaw yàlla kenn nu nattaliwu ko ne noonu la mel kuy jëflanteeg yàlla nag dafay soxla nga xamu melam Serigne Touba itam diggam ak yàlla li mu jëflanteeg yàlla ah, dafay lu wér ngir ba mu xamee ne nii la yàlla mel nii la yàlla toll nii la yàlla defe ba noppi yàlla teg ci ne yàlla yàlla dellu teg ci ne li kulli ummatin ajalun isa jaa ajaluhum la yastaaxiruuna saatan wala yastaqdimuuna xeer wu am na diggu mu war nekk ci kaw suuf boo ne bii saa du ca dolliku saa du ca wàññiku ba ko loolu leeree mu daal ba lépp fab léppam jëmee ko ci yàlla ak yonent bi bañu dara lu leen ñetteel ci moom wal tasbitan bu bakka fii fu aadi wa huwa xayral xalqi fii tamaadi ñaan yàlla mu saxal ak cofeelam ci moom yàlla saxal ak cofeelam ci moom rasulullahi daal ne dan na boroomam nag yëg ne nit ku ne at yi nga war a dund at mu ca génn génn na ca limba te dootu del si weer yi nga war a dund weer bu ci dem dem na te dootu dellu si bis yi nga war a dund bis yi nga war a dund bis bu ci dem dem na su dootu dellu si saa yi nga war a dund saa su ci dem dem na su dellu si te dootu te bu ci dem te yóbbaaléelu la dara boo demee doo fa fekk lenn mu daal di xam nag yitteem jëpp demee ko ci jant ba fenk bu ne buy dem muy jëf jëflante jant ba ci li yàlla digle ak li yàlla bëgg ak li yàlla santaane ba jant ba siir sars buy dem yóbbaaleel ko mu wëlbatiwu weer wu ne muy defante yow ci noonu at mu ne muy defante yow ci noonu saa su ne yow ci noonu guddi gu ne noonu lay defante yàlla mboolem ñi nga xam ne fekk woon nañ fi ab jataayam wóor na leen ne nelawuy guddi ginnaaw fi bàyyi ko la ko nit tal waaye amu fi woon ndax saa su ne ñu ngi dukk dukk ci woote naa ah, nee na nangam ñu leen barab sàngam ñu leen def barab sàngam guddeem du neen bëccëgam du neen subaam du neen ngoonam du neen ci wenn waxtu ci li yàlla diggee ak li yàlla bëgg ak li yàlla bëgg ku koy def loolu nag ba mu jëfalanteeg yàlla noonu nag ah yàlla nga di ko def ni ku talibe yi defee rakam jone noonu nga defanteeg moom kon nag sëñ Tuba amul kenn ku dul talibe gannaaw nag ñun ñëpp ay talibe yi Tuba dong lanu yaakaaru lu dul moom te barke bi tey suñu lépp li nga xam ne lii war ko nañ ko ragal war koy wut war ci sonn lépp jomam may nu ko li ñuy ragal jëm jomam fegal kon war na noo xam ne ñib ci moom rek kon war waaye dañoo xëy ko daal dajeeg dajeeg ku mel ni yow daal li gën a wóor dana daal suñu xel moo jaayante yow suñu alal ak suñuy bakkan nga nga war lu ñu yóbbu àjjana loola yàlla nangu ko daal dina inna allaha istara min al أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وأعطنا لي حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهله ومن أوفى بأهله mënu dugal buntu bi yàlla dugal tëj ba loolu am na yàlla daal di loolu saaba yi la ko yàlla wax wëlbati ko daal di wax ak yonent bi ni ko inna la si ne yu bàyyi xoon ak innamaa yu bàyyi xoon allaha yadullahi fawqa aydihim ñu jaayante yow yàlla lañ jaayante seen loxo ñu ngi ko teg ci kaw loxol yàlla daal di wëlbatiku digal saaba yi ni ñu war a ànd ak yonent bi nag ñaar ko noppee def morom yaa ayyuhaa llaziina aamanuu لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجعل بينكم جبال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يقولون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لتقبلوا مخلص وأجر عسيم إن الذين ينهضونك من وراء الفجار أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا أتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم kon wóor leen noonu rek lan war a ànd ak Sëñ Tuubaa yaakaar ko àddina yaakaar ko àllaaxira dong leen def sëñ bi doon liggéey doonu ci dara moom kenn ko def yàlla it la doon di santal si bi muy ñaan it bàyyiwul fenn bàyyiwul kenn ndax ku ñaan ba ñaanal réew mu nga dëkk naa wax asiran xalaat asal baladi way xaw wal tak fi xënnaka yi bàyyiwoo leen ñu ngeen fi gis moomam bu leen ko nattable te kon nag liggéeyal ko rek nu war nan ko fas yéene liggéeyal ci fas yéene doon taalibeem te coow li ak rajo yi addina bañ na ndax ndax ku ci yem yow rek ay ànd kenn yóbbu la sa jëf rek ngay àndal loolu mooy li wër gannaaw bu loolu wéyee wéyee nag ma doon leen tuuti xamal leen ni leen ci Tuubaa naalal naa ko fi ab liggéey bu jëm ci jumaa ji ci li ko war a wër ak marba buñ ci war a def ak yokk buñ ci war a yokk goo xam ne ñun ñun seen ñaari téeméer danañ ci mën a ci ñuy julli li mu la koy war a liggéey dana jege milliard limaam lépp dana ko ci digal na taalibe bu yaakaar sëñ Tuubaa loo am def ko ci maa ngi leen di sant nag di leen gërëm di leen xam ne lépp ngi ne sëñ Tuubaa dooni wu ko lu ñu jox ko suñu lépp ci bañ koo booleeg lenn lu ñu jàpp lu dul njuumte ci ñun moom rek ko fi moo doon jëfal yàlla boo mu jëfal yàlla kenn Aminu amul ku ma ko doon waxal kon nag sant ko rek nu war ak topp ko ak wéy fi ndigalam loolu rek laa leen di yëgal